wàllub élection muy DGE Sénat ministère de l'intérieur ki nga xam ne la ñu fa daan gis en tant que mandataire du président Ousmane Sonko c'était Ayib Daffé mais comme dañoo dugg ci beneen phase muy phase conseil constitutionnel bi nga xamante ne moom mooy décider qui sera candidat ou qui ne le sera pas quel étudier quel dossier sera étudié ou bien quel dossier ne sera pas étudié ñoom comme mbir mi léegi ci ñoom la nekk nag ñu ne nag léegi dañuy changer li nga xam ne moom mooy mandataire jël un avocat quelqu'un qui est rompu qui sait ce que c'est que le droit qui sait interpréter le droit qui a une expérience moo xamante ne dinañu mën a jàppale bu baax a baax a baax au cas où il y aurait une phase contentieuse parce que xam ngeen ne le dossier du président Ousmane Sonko régime bi nga xamante ne lañu ko seqal c'est un régime boo xamante ne ay bandits lañu comme on a toujours eu à le dire ce sont des bandits et dara du leen ci génne loolu mooy li nga xam ne moom lañ ne woon dinañ leen ko leeralal kon ñu jëm ci li nga xam ne moom mooy dossier wu ki nga xam ne moom mooy euh, Ciré Clédor li wax Ciré Clédor nee la communiqué de la coalition son président nee na ñi nga xamal ñi nga xam ne ñoom ñooy communauté nationale ak international bi ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel li xew Sénégal depuis 16 mars 2021 depuis mois de mars 2021 communauté internationale bi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel li xew xew Sénégal depuis mars 2021 nee na ñu ngi leen di xamal ne coalition bi nga xamante ne parti yu ko composé bokk na ci Front National Union des forces patriotiques ak comité de réflexion pour un développement intégral ñoom ñoo choisir ne dañuy porter la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle bi nga xam ne moo war a am le 25 février 2024 fii ci Sénégal ñu xamle ne monsieur Ousmane Sonko ci boppam dafa choisir avocat wu maître Ciré Clédor Ly nekk avocat bu barreau bu Sénégal comme son mandater ci biir coalition boobu ak représentant turu coalition bii di coalition Sonko président ñoo ngi ko notifié conseil constitutionnel le 11 décembre 2023 parce que candidature bi ñoo ngi ko déposé le 12 décembre 2023 14 décembre 2023 nag greffe bu conseil constitutionnel envoyé na ab convocation pour tirage au sort bi nga xamante ne moo am tey ji ci ajuma ji 29 décembre bi biñ defee tirage au sort boobu président Ousmane Sonko moo jël quatrième kon en principe moom président Ousmane Sonko kon en principe moom président Ousmane Sonko suba la war a jaar samedi 30 décembre 2023 ci premier tour vérification u parrainage avant dernière étape bu publication wu liste définitive bu candidat yi nga xamante ne ñoo war a participer ci élection présidentielle bu 2024 gannaaw ba ñu jaaree également phase bi nga xamante ne moom la ñu tuddee phase contentieuse ba tey son Sonko président bi nga xam lépp moom président Ousmane Sonko. def na lépp li nga xamante ne moom la ko constitution bi may obligation yépp bi ko constitution may def na ko lu ko loi électorale may def na ko réglement ak arrêté arrêté ministériel yi nga xamante ne ñoom ñooy organiser élection présidentielle lépp li nga xamante ne obligé nañ ko ne ko na ko def def na ko waaye lu ñu ko may également ne na ko na ko def def na ko ñu gis ne état wu Sénégal posé na ay acte yoo xamante ne kenn xaaru ko woon xel xalaatu ko woon ngir empêcher li nga xamante ne moom mooy dossier bu candidature bu président Ousmane Sonko te loolu nag d'après ki nga xamante ne moom mooy mandataire président Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor Ly mi nga xamante ne moom wax au nom de la coalition Sonko président nee na lii ñuy wax nii communauté nationale et communauté internationale bi xam na ko il en est témoin muy wax ne nag li nga ci jàng rek mooy avenir de la démocratie sénégalaise tey Sénégal seen démocratie seen avenir seen ëllëg seenuk stabilité seenuk nekk état de droit mi ngi wékku ci juróom-ñaari nit muy les sept sages yi nga xamante ne ñoom ñoo war a signer décider qui sera candidat ou qui ne le sera est-ce que dañuy suivre la volonté de l'État bi nga xamante ne posé na ay actes yoo xamante ne c'est inimaginable et inacceptable pour empêcher président Ousmane Sonko mu nekk candidat ou alors dañuy suivre la volonté du droit et l'autorité du droit maanaam ñu méngoo ak li nga xamante ne moom la yoon wax jox président Ousmane Sonko sa possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024 loolu mu ngi wékku ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa conseil constitutionnel demain Ciré Clédor li mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la wax kon deme en principe incha allahu rabbi Ciré Clédor li bu demee fële nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel lii la fa war a fekk te nii la war a demee représenté ji ki nga xamante ne moom mooy nekk mandataire am muy Ousmane Sonko moom mu dem représenté ji ko au conseil constitutionnel lii la wax ci tubaab ñu faram fàcceel leen ko ci olof mbokk yi dafa am lu ñu fi dab parce que biñ ñu ko joxee comme information ñun ñëpp dañuy xaar li war a xew suba les gens sont suspendus maanaam nit ñi dañoo taxaw di xaarandi mel ni dañuy xaar suba lan mooy xew conseil constitutionnel waaye yàlla dafa dem dans chaque situation dina am information yooyu jot yuñ lay jox yay yaay juger lii dama koy génne wala du ma ko génne lii dama koy téye wala du ma ko téye su ma ko génnewee te loolu mujjul am ba lu ma ciy subir yooyu yëpp daf ci am. mais pour l'intérêt supérieur du Sénégal pour l'intérêt de la nation sénégalaise pour li ngay xeex mën a am jàmm parfois da ngay nangu sacrifier sa bopp ngir wax li nga xamante ne jàpp nga ne boo ko dimbalee nit ñi askan wi ñun ñëpp mën nañ cee am intérêt et Sénégal gañe ci démocratie Sénégal gañe ci loolu moo waral saa su bu ñu jàppee ne génn joxe information day jot rek dinañ ko def waaye pour l'instant dafa am keneen koo xamante ne ci avocat wu président Ousmane Sonko la bokk maitre Juan Branco mu wax wax joo xam ne amoon nañ ci ay information waaye ils sont les plus habilités à en parler man tey jii nii su ma doon wax information bi ma ci am mënees naa jàpp ne de source sûre la waaye nu ne sommes pas plus habilités à en parler te xamuñu woon ñoom avocat yi benn information lañ am waaye maître Ciré Clédor maître Juan Branco génn na wax ci comme nag moom en tant que avocat bokk ci pool avocat président Ousmane Sonko génn na wax ci mu méngoo ak ñun information yi nga xamante ne am nañ ko dans la journée dañuy jàpp ne donc day jaara ñu faram fàcceel leen li maître Juan Branco wax ba pare wax ci ñun liñu ci xalaat ak fa jëm maître Juan Branco nee na mbokk yi suba 9h30 conseil constitutionnel dafa war a décider pour. dàq candidature président Ousmane Sonko xañ ko mu bokk ci li nga xamante ne mooy commission de contrôle de parrainage pour étudier candidature président Ousmane Sonko maître Juan Branco nee na suba 9h30 conseil constitutionnel jël na déjà décision donte yéen xamagu leen ko yéen askan wi ne day xañ président Ousmane Sonko mu bokk ci commission bi nga xamante ne moom war a contrôler étudier parrainage yi nga xamante ne mooy tax ñu naan baax daam baaxul loolu yépp ngir empêcher Ousmane Sonko d'être candidat d'après maître Juan Branco nee na décision bile ñu ngi ko wékk ci lenn képp jàpp ne moom président son ko dossier am dafa incomplet incomplet boo xamante ne jàpp nañ ne moom amul li nga xamante ne moom mooy formulaire de parrainage bi nga xamante ne DGE moo ko waroon a joxe te ne du ko joxe te justice daal di décider danañ ko ko jox mu lànk ne du ko joxe ñu constaté ko par ussier jox ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel ci loolu la bëgg a dat daat ne le dossier du président Ousmane Sonko ne pas complet par conséquent du nekk candidat loolu la ñu Juan Branco wax Juan Branco nee na bi nga xamante ne jël nañ ko tey jii nii conseil constitutionnel moo ko jël ci benn réunion boo xamante ne nekkul réunion bu formel seen daje bu ñu dajale bu gàtt wax ko fa alors que dossier bi sax tiddeeguñu ko waaye ñoom décidé nañ ne président Ousmane Sonko duñu étudier dossier parce que dossier bi n'est pas un dossier complet dégg ngeen ñuy wax ne conseil constitutionnel nee na ku dossier am complet wul duñu étudier sa dossier dañ koy jël tegee ko nale bokk nañ ci dossier yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom suba duñ ko étudier mooy dossier wu président Ousmane son loolu la ñu Juan Branco wax waaye ñu rappeler d'après Juan Branco ne Sénat dafa santoon DGE ñu jox président Ousmane Sonko li nga xamante ne moom mooy formulaire de parrainage et que e moom moo lankoon ne du ko def gannaaw ba nga xamante ne décision de justice ne woon ne nañ ko def DGE lank ne du ko def alors que amoon na décision wu tribunal boo xamante ne daf ko imposé woon daf ne ko woon def ko waaye DGE dafa bañoon te donte sax Sénat ne woon na ko def ko DGE dafa lankoon waaye toujours Juan Branco li nga xam ne moom mooy code électoral dafa wax ne lépp loo xamante ne carence administrative la maanaam erreur faute lu dul yoon loo xamante ne administration moo ko def loolu daf nga ko war a suppléer par Sénat Sénat moom moo war a jël décision wu corriger ko waaye loolu duñ ko imputer ki nga xamante ne moom mooy sénégalais bi nga xamante ne moom moo soxla kayit gi tax mu war a bokk nekk candidat Sénat mi war a décider loolu nag bi mu ko bëggee décider gis ngeen Macky li mu def daf ko changer yëkkati ki nga xamante ne moo nekkoon Sénat DG amee position ba mu amee woon c'est-à-dire lànk daat du jox ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko formulaire de parrainage kon faute bii am ci wàllum administration la faute n'est pas imputable euh, au président Ousmane Sonko moom donc nekkul moom moo def erreur nekkul moom moo tardé nekkul moom moo manqué lay dossier woom waaye dañ ko ko bëgg a imposer dañ ko jaay doole dañ ko jaay lu dul yoon donte sax am na décision de tribunal boo xamante ne nee na président Ousmane Sonko nañ ko jox li nga xam ne mooy fiche de parrainage waaye ñuy fàttaliwaat ba tey d'après kii nga xamante ne moom mooy Juan Branco que ne président Ousmane Sonko am na parrainage yi mu soxla et que donte mi gi prison ak ñu ngi koy persécuter di ko accuser di ko sosal. tey jii nii ñépp xam nañu ne mooy le candidat favori moom mooy candidat bi nga xamante ne sikk sakk amul ne kat sénégalais yi moom la ñu bëgg fal waaye nag pexe yi nga xamante ne ak jëf yu dul yoon yi nga xamante ne réew mi nguur gi fi nekk tey mi koy def contre Ousmane Sonko ngir xañ ko mu nekk candidat ñépp xam nañu ne lii kët nekkul daraay démocratie te mbir la moo xamante ne dañ ko waroon a sa ñëpp ba fexe réew mi tegu ci yoon parce que démocratie mooy doxal am réew waaye nag bis dina ñëw danañu ko corriger bis dina ñëw yu danañ ko àtte parce que nag dëgg mooy li nga xamante ne képp ku nekk ci réew mi ci ab dëgg lañ la war a lañ la war a lañ la war a teg waaye ñoo ngi fàttali d'après ba tey Juan Branco ñii nga xam ne ñoom ñooy les membres du conseil constitutionnel ñoom membre conseil constitutionnel yii nga xamante ne Juan Branco tudd na leen ñii la ñii ma leen a bëgg a tuddal ñoom ñooy les membres du conseil constitutionnel mooy kii nga xam ne mooy le président Mamadou Badio kamara vice-président madam Aminata Ly Ndiaye yeneen membre yi c'est Mohamadou Diawara Youssoufa Diaw Mbodj madame Awa Dieye monsieur Cheikh Ndiaye ak Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly ma répété ko Juan Branco nee na mi ngi fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñooy les membres du conseil constitutionnel nga xam ne membres yooyu ñii ñii la le président Mamadou Badio kamara le la vice-présidente madame Aminata Ly Ndiaye yeneen membres yi nekk Mouhamadou jawara Youssoufa Diaw Mbodj madame Awa Dieye monsieur Cheikh Ndiaye monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly Juan Branco nee na ñoom ñii ñi ngi leen di fàttali lan la leen di fàttali nee na lépp loo xamante ne moo jóge ñoom ci décision bi nga xamante ne bëgg nañ koo jël suba te du dëgg nga xamante ne mën na yóbbu sax Sénégal ci li koy déstabiliser nañu xam ne bu boobaa responsabilité bi ñoom ñoo ko gàddu ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a àtte dëgg sous l'autorité de la loi ñoom ñu ngi koy fàtt ñoom Juan Branco mi ngi fàttali ñi nga xamante ne ñooy membre conseil constitutionnel ne leen déstabilisation wu Sénégal ci période bii nga xamante ne la nekk mbir la moo xamante ne c'est un pari risqué mbir la moo xamante ne waruñu ko def war nañ koo moyto parce que Sénégal moo ëpp doole Macky Sall Sénégal moo ëpp doole régime bi fu nekk Sénégal moo ëpp doole conseil constitutionnel kon nañ kon nañ wax dëgg te yàlla tax ndax Sénégal rek moom moo soxla tey jii ni ñu wax dëgg waaye ñuy wax ne également ñoom conseil constitutionnel membre yooyu set yooyu ñoo ngi leen xamal ne décision boo xamante ne jël nañ ko ci mën na yàq loo xamante ne moom mooy firndeel ne Sénégal mënoos mësoon na nekk état de droit et que Sénégal ak Afrique ñu jar dara aux yeux du monde parce que ñoom ñoo participé ñoom membre conseil constitutionnel ci li nga xamante ne mooy yàq état de droit waaye loolu bu amee dinañ soutenir forfait yi nga xamante ne Macky Sall ak régime am ñu ngi ko fay def depuis di jalgati yoon donte yoon day décider ñoom ñoo ne duñ ko exécuter. kon li war a xew suba d'après Juan Branco di ko wax ñi nga xamante ñoom ñooy les membre de la ju conseil constitutionnel mooy le sort d'un peuple est en train de jouer avenir u dëkk ëllëgum réew ëllëgum askan suba ñoo ngi ko war a mën a décider lan la conseil constitutionnel wala décider lu dul wax dëgg jox président Ousmane Sonko li nga xamante ne moom mooy possibilité mu nekk candidat wala jéem a di dossier am ci li nga xamante ne moom mooy liste yi ñu war suba def li nga xamante ne moom la Macky Sall bëgg fàttali conseil constitutionnel ne lu toll ci mille prisonniers politiques tey ñi ngi taxaw di xaar ñu libéré leen te dara taxul ñu tëj leen kaso mooy xañ président Ousmane Sonko mu nekk candidat ñuy fàttali conseil constitutionnel ne ko plusieurs millions ay millions de sénégalais tey jii nii ñu ngi yàkkamti ñu delloo li nga xamante ne mooy Sénégal li nga xamante ne moom mooy souveraineté am ñu ngi yàkkamti ñu delloo li nga xamante ne moom mooy Sénégal possibilité ay peuple am askanam am li nga xamante ne moom mooy liberté d'expression ci ñooñu nag d'ailleurs sax bokk na ci benn citoyenne française bi nga xamante ne tey jii nii mu ngi di kasoog Macky Sall mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la Juan Branco wax muy information de taille su ma ko dee tënk rek dinaa leen xamal ne Juan Branco nee na suba conseil constitutionnel décidé na ne liste yi nga xamante ne la ñuy xool dossier yi ñuy xool ngir xool ba xam ñii dañuy xool vérifier seen parrainage dossier yooyu dossier wu président Ousmane Sonko du ci bokk parce que ñoom dañoo jàpp ne président Ousmane Sonko dossier mu bokkul dossier mu matul li tax ñu jàpp ne matul ñoom conseil constitutionnel mooy jàpp nañ ne amul formulaire de parrainage te moo ne gis na ne. décision de justice am na bu wax ne président Ousmane Sonko nañ ko jox li nga xamante ne moom mooy formulaire de parrainage am conseil gis na ne moom président Ousmane Sonko à travers son dem na DGE pour jëli li nga xamante ne moom mooy fichier de parrainage formulaire de parrainage du lànk conseil constitutionnel gis na ne Sénat wax na DGE ne na leen ko jox DGE lànk conseil constitutionnel gis na ne bi ko Sénat waxee Macky Sall daa wàccee ki nga xamante ne moo jiite woon Sénat conseil constitutionnel gis na ne. ñun def nañu lépp loo xamante ne waroon nañ ko def ngir am li nga xamante ne mooy fichier de parrainage waaye Sénat moo lànk ne moom du exécuter une décision de justice kon conseil constitutionnel moomu fan la war a mën a teg ne moom kat dossier wu président Ousmane ko matul ndax amul fiche de parrainage te moom mu xam ne su Ousmane Sonko amulee fiche de parrainage officielle comme bi ñëpp am c' est parce que faute bi nekkul ci moom Ousmane Sonko nii si mandataire waaye mi ngi nekk ci une administration de l' état ci loo xamante ne moom mooy at administration euh, donc faute bi administration bi ci lañ ko war a corriger waaye nekkul ci kaw Ousmane Sonko la war a tey jii nag conseil constitutionnel en sachant tout cela d'après Juan Branco ñoom dañoo bëgg a jël décision boo xamante ne li jàpp mooy ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko dossier matul kon du bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a boole ci li nga xam ne ñoom la ñu war a saytu seen parrainage mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom la ñu Juan Branco jox comme information te wallahi en milieu de journée jot nañ information bu wax la même chose venant du même. ne conseil constitutionnel dafa décider ne du étudier dossier wu Ousmane parce que dafa jàppane ne parewut dafa jàppane matul waaye boobu ñun ñoo ngi gëstu rek taxaw di xaar di xool information boobu ba xam am naam amut faf sax nag kenn ci avocat wu président Ousmane ko génn wax kon suba qu'est-ce que le conseil constitutionnel décidera in fine est-ce que suñu wax ji dina tax ñoom ñu mbéj leen ñu yeewu xam ne dëgg moom mooy njëkk te mooy mujj yaakaaruñu ko. waaye nag xëy na mu yee leen as tuut ñu xam ne nag mbir mi moom jeex na ba pare et régime bi dafay jeex et que du Sénégal moo ëpp doole fuuf avenir u Macky Sall ak régime am wala avenir u des membres du conseil constitutionnel parce que dëgg gi tey dëgg mooy président Ousmane Sonko dañ ko tooñ ci lépp. loolu mooy li nga xamante ne xam nañ ko ci information te amoon ko tey dans la journée ñu ne woon dinañ ko partager ak yéen kon demain. conseil constitutionnel bu xëyee daat ne kat du ñu étudier dossier wu président Ousmane Sonko son avocat Juan Branco joxe woon na ci ay informations yu leer yu ñëpp jotandoo dégg ko si à contrario ñu décider ne kat dinañ ko étudier comme cela se doit alhamdulillahi rabbil alamin on aura alerté comme cela se doit et que alerte bi bu dee dina jariñ ñoom ñu delloo si nekk ay nit juge droit au nom de droit seen aqulayi taala bu boobaa itam alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax parce que loolu la ñuy xaar ci ñoom waaye lu mu si mënti doon lu mu si mënti doon conseil constitutionnel bu décider dëgg te yàlla rek tax c'est le peuple sénégalais qui va en gagner conseil constitutionnel bu décider leneen loo xamante ne du dëgg c'est le peuple sénégalais qui va en pâtir qui va en perdre et ñoom ils vont entrer dans l'histoire parce que y des gens yoo xamante ne dugg nañ dans l'histoire politique du Sénégal la très mauvaise des manières am ñoo xamante ils sont entrés dans l'histoire politique du Sénégal et dans l'histoire de la démocratie sénégalaise de la plus belle des manières boo xoolee le juge Ousmane Racine Thion man mii génne naa fi ne gëmu woon ne dina décider li mu décider moo tax damay wax saa su ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne tey buñ ko gisoon dinañ ne ko yow de ñoo ngi lay baalu àq bu baax a baax a baax parce que la ñu jàppoon ne kat mbir mi yàqoon na fu ba jàppoon na ca nga bokk bokkoo ci kon yow jar ngaa jéggalu moom Ousmane Racine Thion tey dugg na dans l'histoire politique du Sénégal de la plus de belle moom également dugg na dans la de la plus belle des manières dans l'histoire de l'état de droit et de la démocratie sénégalaise boo jëlee li nga xamante ne mooy également mooy euh, ndaw si nga xamante ne mooy Aminata Diallo Ba moom également dugg na ci li nga xamante ne mooy l'histoire du de l'état de droit et de la démocratie sénégalaise de la plus belle des manières mais jëlal yeneen juge yoo xamante ne gis nañ seen taxawaay du ma tudd tur tey waaye nañu jël rek xool juge yi nga xamante ne àtte nañ fi fàttaliku leen ñu tey ñun ñu ngi leen di noté di leen bàyyi xel te xam ne ñun yàlla dañoo dimbalee benn mbir fii Pastef moo fi gën a am parti boo xamante ne ay xale lañ bokk ci ñiy defar réew mi ak yor réew mi waaye ñi nga xamante ne ils de la plus mauvaise euh, euh, graine ñoo incha allah rabi dañ leen di sempi parce que réew mi lu baax la soxla bokk na ci ay Thiendella Fall bokk na ci ñi nga xamante ne tey jii nii ñoo nekk ministère de l'intérieur bokk na ci ñi nga xam ne tey jii nii tey ñoo nekk Sénat parce que waxuñu dëgg te yàlla tax loolu nag incha allahu rabi c'est quelque chose à noter et cette responsabilité aujourd'hui mi ngi ci mbaggu ñi nga xamante ñoom ñooy les sept charges du conseil constitutionnel nga xamante ne ñoo war a décider mbokk yi foofu la ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi di leen wax ne rek jot naa dina diffuser dans quelques minutes déclaration wu sire Ciré door lii bi nga xam ne mi ngi koy def en principe ak su ma kenn ci journaliste yi nga xamante ne fekk na ko ci cabinet am nañ ne suñu taxawaay am taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war a am ba yàlla defal ñu ndam incha allahu rabbi parce que ndam li mi ngi at ñun kon ni ma ko waxee tout à l'heure mën ngeen a suivre tout à l'heure également li nga xam ne moom mooy dans un instant euh, la déclaration